yéen a ngi teewlu info 221 info 221. Ah, di leen jaajëfal yéen mbokki safo di déglu info 221 di leen jaajëfal ci ànd beeg déglu bi di leen jox seen wàccuwaay ah, te altine yam moo ko juróomi fan ci weeru juin atum 2023 atu rek wax ci manifestation yi ak ñi ci ñàkk seen bakkan force de défense ñoo faat wala dafa am ñu ci rax nag ah, tax na police nationale daal di indi indi daal dina amal nag ni ki démb ab conférence de presse boo xamante ni dafa fas yéene rek addu ci li nga xamante ne jàpp nañ ne daal la di force de défense force de sécurité ñoo daal di faat ñi ci ñàkk seeni bakkan ba tax na nag askanu Sénégal nag jóg uh, daal di déglu rek li nga xamante ne mooy duppee ci takk der yooyee ginnaaw bi nga xamante ne tàmbali na commissaire géey nag moo daal di àddu ci li nu mel uh, ba mu jëlee nag kàddu la mu njëkk uh, fësal mooy ay vidéo yu bari yoo xamante ne daal nemmeeku nañ ci ay nit yoo xamante ni bokkuñu ci takk der yi kenn ka nga sol nag ab yëre bu rouge nag daal di ab arme kooke nag ci takk der ci takk der waaye nag ci woy manifeste yi ndaxte kooke dafa mel ne ku ñëwoon ngir infiltrer alme bi ci noone ci biir manifestation commissaire nag jàpp na rek ni lii nga xamante ne moom la askan ji joxoñ baaraamu tuumal takk der yi ne ñoom ñoo leen fàtte gis na ne daal ñoom defu defuñu leen rudul aar askanu Sénégal rawatina rek seeni kaaraange ba tax na nag bu mbir amee rek yenn saay dañu naan nag ñi ci bokkul dañ ci raxaale fas yéene rek daal di fi indi ay jaww te jàpp nañ ne ku di fàtt ab bal nag takk der yi ñoo ko daal di faat mais loole nag commissaire Guèye daal na ko weddi waaye nag di yomb ci askan wi ñu gëm ne du takk der yi ñoo faat ñi nga xam ne rek jot nañ ñàkk seeni bakkan donte sax jot nañ ci indi ay leeral ci ay vidéo yu bari wone rek ne ñoom laale woon du leen tax a jóg mooy sàmm kaaraange leew ci kàddu yooyu la capitaine Touré daal di addu weddi loolu kàddu yi nga xamante ni moo duppee ah, ci conférence de presse bi nga xamante ni police nationale daal dina ko indi moom capitaine Touré nag mi ngi jàpp rek ne ab police ak gendarmerie jamono ji dañoo daal di bàyyi seeni liggéey bu fekkente ne dañuy fas yéene nag di ndax askan wi ngir daal di couvrir ay hommes politiciens yoo xamante ni daal yorewul ay appartenance lañ fi am gendarmerie ak police moo xam armée seen principale mission mooy daal di sàmm kaaraange askan wi waaye tamit sàmm kaaraange euh, sénégalais yi ba fitna bu fi amee ñu seet naka la ñuy def rek ngi daal di euh, revenir situation bi à la moom capitaine Touré daal di àdduna li leen war a tax a jóg nag mooy patrie waaye naka bokkul nga daal di protéger ay nit ñoo xamante ne tey jii ay homme politique lañ te rek bàyyi askanu Sénégal ñu faatu ci contexte bi nga xamante ni wàllum politique nag moo daal di indi coow li lee président Macky Sall ki fi nekk naka dafa daal di intérêt boppam moo ko fi toogloo waaye tamit sàmm kaaraange ñi nga xamante ne ñoo féete ci moom te loolee nag warul benn yoon ki nga xamante ne ab tax der la ndax ndaxte liggéeyam dëgg mooy fas yéene yemale tollale waaye tamit aar askan wi ci jafe yi nga xamante ne ñoo fa nation ah, ci noonee capitaine Touré jàpp rek ne république nag bokk na ci officier yi nga xamante ni ah, seen dernier rempart mooy rek fas yéene garantil ñi nga xam ne ñoo féetee ah, ci nguur gi ngir rek seen liggéey gën a ñoŋ waaye nag nañu fàttali nag ab ab proverbe mu ngi naan nag les institutions les hommes passent les institutions restent manaam nit ñi dañuy dem waaye nag lépp lu jëm te institution dafiy des ba tax nag type enquête bi nga xamante ni waa police na loo xamante ne du yomb lool askanu Sénégal daal di leen gëm rawatina ñu féetee lu nu mel kay luñ ko war a def mooy daal di ko yóbbu ci yoon ba ñi nga xamante ne ñoo def lu nu mel ñu daal di ko fayante capitaine Touré laata mu jeexal nag mi ngi jébal njaalam nation sénégalaise waaye tamit mi ngi ñaanal ñi nga xam ne rek nañoo ñàkk seeni bakkan yàlla xare leen arjana eh, te ba gën a kawe waaye itam di sàkku rek jàmm dellusiwaat fii ci réewum Sénégal mbokk yi du samay kàddu capitaine Touré moo def ab jàngat ci conférence de presse bi nga xamante ne police daal dina ko amal démb di indi ay leeral ah, ci joxoñu baaram tuumal bi nga xam ne askan wi jàpp nañ ni képp koo xam ne rek jot na faatu ci manifestation yi ñoom takk yi ñoom ñoo ko faat waaye nag capitaine Touré indi na ci lu bëri loo xam ne ah, jot na ko fësal dem rek ci taxawaayu takk moo xam gendarme ak police ni war a taxawoo ah, ci kanamu askanam waaye tamit tegee ne lépp lu jëm ci wàllum politique di protéger ay bàyyi nag askanu Sénégal ñu daal di ñàkk seeni bakkan di leen jaajëfal mbokk yi ci ànd beeg déglu bi di leen woy nag di leen wax ngeen abonné ngi daal di jot lépp lu jot ci xibaar fi ci Sénégal waaye itam ci bitim réew jërë ngeen jëf